keneen ki ma lay laajte Dame Mbodj la la lay inspiré. <laughs> ba léegi andiloo ma ñoo xamante ni mën naa inspiré dara. mais c'est des gens yoo xamante ni damay gis ngay tiré si ñoom. waaw ci mel ni waaw lan nga koy reproché. exactement Dame Mbodj lu ma koy reproché mooy ñoom dañoo xeeb seen bopp lu ñu doon. parce que Dame Mbodj ba muy nekk Dame Mbodj nekk enseignant ba nekk syndicaliste sénégalais yi nawoon nañ ko bëggoon nañ ko lu tax mu soobu si langue politique bi. bay dem tey di jàppal tànk benn Ousmane Sonko. yow yaa ngi ni di nekk si nangu politique bi di jàppal tànk président bokkul non attends xam nga bokkul xam nga Dambodj dafa ne enseignant la. si côté jàng am na loo xam ne waroo si mélanger sax politique. ok parce que njàng éducation la da nga war a yar xare yi ainsi de suite ainsi de suite mais xoolal fitna bi tey yëpp am ci réew mi Dambodj ki mu àndal moo ko fi andi muy Ousmane Sonko est que xale yi dañ leen war a di jàngal fitna saagal laqal dóoral. kookoy Ousmane Sonko Dame ko kooku la àndal di roy moo tax ma ne dafa def faux pas Dame Mbodj syndicaliste mënoon na syndiqué enseignants yi bu école bi kay doxul wala big doxul ñu kaas loolu lañ doon xaar si moom. mais pas ngay ñëw di ubbi ànd ak benn politicien non non naa ko loolu waay. bul ko xeeb. ko trop dafa wàcc àndam. <laughs> lu nga koy xeeb. non xeeb naa ko yaa ngi politique ànd ak président Macky Sall. moom aussi mooy politique ànd ak ànd ak Macky c'est deux choses deux choses différentes moom mooy kan.